nga farlu ci saa duggee sa kër rek dal di jàng fatiha teg ca xul huwallaahu teg ca ayatul kursi yi teg ca saaru qaariha al qaarihatu mal qaariha teg ca inna ansal naahu loolu taxoo ko saayoo yoo dugg sa kër rek nga jàng yooyu le dana tax yàlla may la wërsëg bu yaatoo yaatu wasalaamu ak nuyu ala nafsihi ci boppam wa ahlihi ak ñoñam xinda doxoolil mansili fataab bi kër ga ay doon ba tey bokk na ci taxam wërsëgu yaatu talew lew nga farlu ci saa yoo duggee sa kër rek nuyu ña nga fa fekk su fekkee fekkoo fa kenn nag nga nuyu sa bopp ak malaaka yi ànd yow wax assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin loolu dana tax a bari wërsëgu yaatu te lew wa man qara aku jàng suuratal waaqiati saaru waaqia kulla laylatin ci gépp guddi lam tusibhu du ko jot faaqatun ñàkk xaalahu wax na ko fii kitaabin nuurayni ba tey taqoo jàng saaru waaqia guddi day tax nga mucc ci ñàkk nee nañu ku taqoo jàng saar woo muy ci guddi gu daal moom ñàkk du la dal mukk mukk wa qaala al-Ghazaliyu fil manhaj faalam xamal bi anni ci naka man sa'altu laaj naa ba'da mashayixina lenn ci sunuy sëriñ xamma walis la nga xam ne yaataa du foo dana ko baaxoo awliyauna sunu kilifa yi min qiraati suuratil waaqixati ci jàng saaru waaqixa fi ayaamin xusrati ci fani jafeñ ga maanaam fani jafeñ-jafeñ alaysal muraadu ndax déet lañu namu bi daalika ci loolee an yadd faxa bu jiñee allahu yàlla taxalaa kawe ashiddata tartar ba anhum walis ñoom wa yuwassixate muy yaatal alayhim ci ñoom bi shay'in ci dara mina dunya ci àdduna xalaamaa ci la nga xam ne jarat daw na bi ci moom al aadatu aada fa kayfa tasixu naka lay wéree iraadatu mataaxi dunya namm xéewaluk àdduna wala namm bagaasub àdduna bi xamalil axirati jëfi alaxira fa qaala mu wax fii jawaabihi ci tontam la rahimahullah maanaahu maxnaam loolu ànnal muraada naka lañu namm minhum ci ñoom wala ànnal muraada naka nammeel ga minhum tukkee ca ñoom añ yar suqahum moo di bu leen wërsëgalee allahu yàlla xanaa xatan ak doylu aw quwatan wala kàttan takkuunu kook dana nekk xoddatan di xarookaay mooy di jumtukaay lahum ñeel leen xalaa ibaadatillahi ci jaamu yàlla taala kawe na wa quwatan tey doole xalaa darsil xilmi ci jàng xam-xam wahaasihi te yile min jumlatil xayri mi ngi bokk ci mboolem yiw duna duniyaa ci ludul àdduna al imaamul Ghazali dane dama laaj kenn ci sëriñ si ne waaw man dama gis nit ñu baax ñi ñuy jàng saaru waaqiya mel dañoo bëgg yàlla may leen wërsëg may leen yaatug àdduna dama defe ne loolu daa xaw a nuru jëf-jëfi alaaxira te bëgg ca àdduna ne mu tontu ma ne ma dañoo bëgg rekk dey yàlla wërsëgale leen ak doylu mbaa alal ju lew joo xam ne dana mën a tax ñu mën a wéye lañ nekkoon ci jaamu yàlla ak ci jàng xam-xam di ko gëstu te ndegam adduna ji dañ caa yéene defar alaxira kon loolee du doonati adduna day soppiku bokk ci jëfi yi wi alaxira ndax wut adduna ngir adduna rek moo aay waaye wut adduna ngir dimbali ko ci yoonu alaxira moom aw yiw la ci yiwi alaxira la bokk waalam na nga xam ne ann haadihi siirata naka wile doxaliin te ani maa ngi jublu xiraata haadihi suurati jàng wile saar xinda shiddati fa tartar ba fi amri risqi ci mbirum wërsëg wal xasaasati ak ñàkk innama hiya naka moom chey un mbir moom rot bi ci moom al axbaaru xabaar ya al masoratu yer nettali ani nabi jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxani saxaabati ak jële ca saxaaba ya mu ne loole ku baax kookee tontu mën nga caa dolli ne jàng suuratul waaqiya ci jamono yu wërsëg jafe mënees na ne sunna la ndax jële nañ ko ci yonante bi jële ko ca saxaaba ya abdullah ibnu mas'ud sax bañ ko yedd ci lu tax doo jéem a bàyyi sa gone yi lu tax doo jéem a bàyyi sa gone yi luñ mën a wéyee boo fi bàyyi ko mu ne a ah, bàyyee naa leen saaru waaqiya kon taxoo jàng saaru waaqiya ci jamono yi jafeñ-jafeñ rawante nag guddi gu ndax yàlla yombal jafeñ-jafeñ ya sunna la su wér a wér wa fi kitaabin nuurayni nekk na ci téere bi an nuuray ni an na man naka koo xam ne xara jàng na suuratal muzammili saaru al muzammil dafa kon jiñ allahu yàlla an walis ko alxusra ñàkk fi duniyaa ci àdduna wal axirati ak alaxira boo dee xool kitaabu nuuray ni wax na fa ne ku jàng suuratul muzammil mooy yaa ayyuhal muzammil yàlla dàqal la ñàkk fii ci àdduna ak fële ci alaxira waxuñu nag lim boo koy jàng xanaa kon manes na ko bari la jàng rek kon wa mimma bokk na ci la nga xam ne ya jurru dana ñoddi ar risqa wërsëg aydan ba tey katratu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim bari la wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim fa innaha naka moom tasbihul xalaa'iqi mooy sàbbaaluk mbindeef yi wa biha te ci moom yursaqoona la deefi leen wërsëgale bokk na ci liy taxa bari wërsëg ngay bari la wax ci saw làmmiñ subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazimi moom nag bari ñu ko seetlu ñoo xam ne buñ ko dee baril daal dañuy gis wërsëg wu baree bari di leen dikkal te yomb lool te xéewale lool nee nañu sax buñ ne wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdi alquran ne loo gis lu ne ma ngay sàbbaal yàlla mu ne baat yi mooy li mbindeef yi sàbbaale seen boroom teyit mooy tax seen boroom di leen wërsëgal way ruwaa def ne nettali di bi annahu naka lañ mbir moo di dafa def annaha kon annaha naka luy xissa ba maa xusidat góobee fut shajaratun garab illaa bi tarkiha ndaraj ak bàyyeem ak tasbiha sàbbaal mu ne net li nañu ne sax garab goo gis ñu gor ko mbaa ñu folet ko rek daa sàbbaalut garab gu bàyyi sàbbaal rek benn ñu dog ko mbaa ñu falet ko mbaa daal am lu ñu dagg ca moom wa minhu bokk na ca ittixaasul xanami jàpp ay gàtt faqad warada rot na fil xadiis ci hadis anna fi kulli shaatin naka nekk na ci bépp gàtt barakatan barke ba tey boo bëggee bari wërsëg wu lew fexeel ba wut ay gàtt muy xar muy bëy ndax hadis ba nee na gàtt boo gis rek yàlla def na ca barke barke nag moom day loo xam ne du jeex lu amul barke nag lu mu bari bari moom daanaka lu jeex la ba noppi moom it bokk na ca tasmiyatul di tudde xale ba muhammadan muhammad aw ahmada wala ahmad intaha bokk na ci tax yàlla bari sa wërsëg nga tudde sa doom muhammad wala ahmad maanaam tudde ko yonante bi dana tax yàlla may la wërsëg bu yaatoo yaatu wa fii nekk na ci aydan ba tey wal xiilatu pexe ma fi salaamati ci mucc minal afaat ci gàkk yi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla ku jullee salaata subahi julli suba fii jamaahatin ci mbooloo su ma yadkuru topp dana tudd allah yàlla taxalaa kawe na xataa tatluha ba fenk asam su jant bi suma salla topp mu julli arbaxa rakaxaati ñeenti rakk laa yaduruhu du ko lor shay'un dara min xalqillahi ci mbindeef yàlla yi taxalaa kawe na min saaxatihi tàmbalee ci waxtoom wa tilka woowee ilaa misliha ba ci am kemam minal xadi ci ëllëg sa boo dee xool kitaabu nuuray ni am na fu mu waxee ne boo bëggee mucc nag ci xeet yi ya ñuy bañ xeet ya ñuy ragal aka moytu boo ci bëggee mucc addis ba nee na woon dangay fexe ba jullee suba ci mbooloo boo sëlmalee nga toog nag di tudd yàlla ba bi fenk nga julli ñeent rakka loolu boo ko defee waxtu wa ko defee ba muy dellu si benn mbindeef du la mën a lor mukk mukk qaala rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam dana wax allahu yàlla taxalaa kawe na yebba na aadama yow doomi aadama uzkur nii deema tuddaka fàttaliku min baadi salaatil fajri ci gannaaw jullik fajar saaxatan waxtu wa min baxdi salaatil xasri ak ci gannaaw takkusaan saaxatan waxtu ak fika kon ma fegal la maa la nga xam ne baynahuma nekk na seen diggante yonante bi nee na saa nee na loolu mooy xadis qudusi yonante bi nee na saa nee na yow doomi aadama fexeel ba gannaaw boo jullee fajar nga toog tudduma fàttaliku ma lu néew néew aw waxtu ba tey gannaaw ba jóge takkusaan nga toog fàttaliku ma lu néew néew lu mat waxtu soo ko defee ma fegal la lépp lu la naroona lor ci diggante subaak ngoon wa fil xisni alxasin lit dimashqi yi man sàllaa ku julli alfajara fajar fii jamaaxatin ci mbooloo suma xaxada topp mu jekki yazguru di tudd allah yàlla taxala kawe na xata tatluxa ba fenk asam su jant ba suma salla topp mu julli rak xatay ni ñaari rakka kaanat kon mu nekk la wàññeel ko ka ajri xajjatin lu toll ne yoolu aj wax umratin ak umra taam guy aji mat guy aji ñu baamu ko yetti yoon ngir feddali boo dee xool alxisnul xasin ku ñuy wax ak dimashq moo ko defar wax nañ ca ne addis ba nee na boo jullee suba te jullee ko ci mbooloo nga toog nag di tudd yàlla ba jant bi fenk nga julli ñaari rakka da nga am tuyaabay aj ak xumra yu mat sëkk yu mat sëkk yu mat sëkk dañoo baamu mat gi sëkk ndax fedd li dañuy bàyyi nag ba jant bi fenk ba yëkkati ku mat ñetti meetar ci boo ko dee xool ci sa bët boo nekkee ci biir mën laa seen jant bi mën ngaa xool rekk waxtu wañ nodde woon salaatu buñ ca tegaatee waxtoog genn wàll rek dana fekk jant bi fenk ba yëkkatiku lu mat ñetti meetar ba ëpp ko insha allah fii ci nekk na ca téere boobee maa min aadamiyin amul benn doomi aadama illa bi qalbihi dara nga xam ne ñeel na xolom ba baytaani ñaari néeg fii ahadihima nekk na ci benn ci ñoom ñaar almalaku malaaka wa fil aaxari nekk na ci ba ca des ak seytaanu seytaane wa iza zakara dem tudd na allah yàlla taala kawe na xanasa mu suturlu maanaam mu deltu gannaaw te làqu moom seytaane wa iza lam yazkur ndem tuddut allah yàlla wadaxa teg seytaanu seytaane min xaarahoo aw sàllam maanaam nag min xaar day firi aw sàll bu dee ci xeeti rab yi naaw mel ne njanaaw yi ak sax ganaare yooyu am nañ ay sàll seen sàll yooyu moo tudd min xaar fii xal bi yi ci xolom was wasa temu jax-jaxee la ñeel ko ba tey boo dee xool ci alxisul xasin andi nañu fa ñu ne doomi aadama bu ne yàlla def na ñaari néeg ci xolom benn néeba malaaka moo cay nekk di ko ñor di jëme ci lu baax nee ba ca des seytaane moo cay nekk di ko xabtal ci lu bon bu jaam bi dee tudd yàlla di ko fàttali ko nag seytaane sa day làqu deltu gannaaw du mën a jax waaye bu fekkee tuddul yàlla nag fàtte yàlla moom seytaane daal di teg ab ñoxam walla nga ne aw sàllam ci xolub waajoojee di ko jax-jaxe rek di ko wëlbati jëme ci safaan ba wa fi kitaabin nuurayni lil yamani wa qaala wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man baata ku fanaan xalaa tuhurin ci ak laab baata fanaan maxaxoo ànd ak moom malakun malaaka yaxfaduhu moom dana ko wattu min kulli aafatin ci bépp gàkk hadis ba nee ku fexe ba booy tëdd amee ak laab day am malaaka mu fanaan ak yow di la sàmm ba dara aay du la lor waqaal te mu wax ne man axasa ku jàpp mad jaxaxoo ab tëddukaayam fa xara ate mu jàng suuratan aw saar min kitaabillahi ci téereb yàlla bi xasa tedd na wa jàllate mu màgg wakkala kon wakiil kon boole allahu yàlla bi ak moom malakan am malaaka yaxfaduhoo moom dana ko wattu wa yaxrusuhoo tem koy sàmm min kulli shay'in ci mépp mbir yuzihi moom dana ko lor xataa yantabiha ba ba mu yeewu min nawmihi ci nelawam mu ne nee kuy tëdd jàng aw saar ci alquran foofu nag moom ràññale wuñu fi wenn saar mel ne kon saar woo jàng rek mu baax booy tëdd daal jàng aw saar ci alquran yàlla dalay booleeg malaaka moo xam ne moo lay sàmm ba dara du la mën a lor ba ba ngay yeewu daañu tàmm nag booy tëdd nga jàng fatiha ak kursi ak lixlaas ak falaqek naasi waqaala wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa min rajulin amul jenn waay ku dana saraxe yow man ci ab bëccëg wala laylatan du caagéen ci guddi illaa waxu vida ndare bu watoof ko min an yamoota ci mu faatu min ladratin ci ak màttub jaan wala jiit aw haddamatin wala ak màbbu aw yamoota wala muy faatu baxtatan ci ak bette hadis ba nee na saa yoo saraxee rek moo xam guddi la moo xam bëccëg la faw yàlla aar la ba lu mel ne jiit mbaa jaan yooyu am tooke di matte dara du la ca matt dara du daanu ci sa kaw ni ki tabax ci kaw nit doo dee itam deewu betteel moo tax saraxe itam baax na lool di ko fonk te yàlla rek tax te di ko jox ko ca loru moo xam guddi la moo xam bëccëg la waa fil i'tisaali nekk na ci beru ga ani naa si nit ñi asalaamatu mucc ga fi diini ci diine wa duniya ak àdduna li ànnal ngir naka aji beru ja isa lam yara ndem gisut almahaasiya moy ya walam ca ñoom lamee du war a ci moom al amru digle ci njekk wa nax yu ak tere ga munkari walis lu bon walam yu aaqas te def ko jàppe bihaa ca ñoom bokk na ci li tax mucc nag bañ jaxasoo nit ñi jaxasoo boo xam ne mën naa ñàkk te amul njariñ booy jaxasoo nit ñi na jaxasoo ba nekk lu mënta ñàkk te am njariñ boole ja soo xasee beru rek gisoo xeeti mooy yàlla yi yëgoo ko déggoo ko rek yàlla du la topp digleeg aaye ndax digle lu baax aaye lu bon dañ ko gàll ci loosu kenn ku ne ci nam ko mëne su ko may dindi ci na dañ mu deñ ci doole def ko su ko mënut ba man caa wax ba ñëpp xam loolu aay na mu wax ca su ko mënut mu yéene ci xolam yàlla seeral ne lii de su ma ko mënoon dindi faj ko te daldi sori foofee ñuy defee lu aay la mu ne nag bu fekkee da ngaa beru rek xeeti mooy yàlla yi gisoo ko yëgoo ko rek yow kenn lu la ci gàll dara mucc nga kon ci ñu lay topp bu ëllëgee lu teewoon nga digle mbaa lu teewoon nga aaye wal maxaas yi xeeti mooy yi kulluhaa mboole seen baynes nay ni nekk na diggante ñaar alwaxdatu wéet ga min ci ñoom aslamu moo gën a mucc nee boo doxee ba yem ci mooy yàlla moom faaw du mën a ñàkk nga waslu ci àq bala ci yoon sant mbaa rek nga gàddu ca bàkkaar waaye doo mën dem rekk noonu daldi mucc léegi nag boo toogoon nag beru ba gisoo xeeti mooy yàlla yooyu da ngay daldi mucc ndax kenn du la ca topp lu teewoon nga tere ko boo fi sumti nekk na ci noppi ga jullu salaamati li ëpp ci mucc téye sa làmmiñ itam nee na na ko fonk bu baax a baax ndax man samata najaa ku noppi mucc li ëpp ci mucc daal ñu ngi koy amee ci noppi wala xaaqilu aji xellu ja huwa moom alfatinu mooy aji xellu ja almutaxaafilu kay aji yëgadi yëgadilu mu ne nag li gën mooy nga yeewu ba noppi te doo feeñal ne yeewu naa maanaam yeewu yeewute goo xam ne ku lu xamut mën naa bañ a xam ne yow mii ku yeewu nga tax bu ñu xamee foo jëm rek li ci ëpp doo àgg waaye boo yeewoo nag tamel ni ku yeewuwut nag ci ngay gën a mën a doxale say mbir na mu gëne wax sabru muñ diyaa un leer la waxuqu baaxuti ak alfara ju moo di wëññiku njàqare muñ moom nang ko def sa ngànnaay ndax leerug fajar la boo ko toppee mu yóbbu la ci leerug bëccëg te foo ko fekk lu baax rekk ci mujj maanaam ñu wax naa muñ muuñ muy muñ foo ko fekk rek muuñ moo cay mujj wal taxfaz na nga wattu asraran naasi secret nit ñi kullaha mboole seen wa tastur te na nga suturaal xoyoo baxum seeni sikk wa taxfir te na nga jéggale dunuubahum seeni bàkkaar wala tanqul te bul toxale min ahadin tukkee ci kenn ila ahadin jëm ci keneen chey an dara yesoo uhoo loolu dana ko naqari min kulli leen ci jëpp jëf aw xawlin wala wax yustaru te def na ko suturaal wa yustaxyaa te def rus min ca feeñam ga aw taxtaaju wala ngay aajowoo ilal i'tidaari jëm ci dogal ngànt maanaam feeñal ngànt minhu ci moom yow man ci ab bis fal taj tañifu na nga ko moytu moom loolu falaa xayra dit am yiw fii muy nekk ci moom boo bëggee mucc te am yiw àddina ak alaaxira daal fexeel ba secret yi nit ñi muy secret yi jàmbur yi loo ci xamit na ko denc ni ngay dencee sa secret su bopp bul ko siiwal loo xam ci ab jàmbur ci sikk na ko suturaal buñ la tooñee na nga jéggale ngir yàlla na moytu dem di nettali keneen naa ko diw daal nangam mbaa nangam muy wax muy jëf joo xam ne yaa ngi koy nettali waaye xam nga ne ëppoon naa nettali ndax boo ko nettalee kii ba mu dégg ko faw mu naqari ko loolu mën naa andi ay woo xam ne kenn xamul fa mu yem. lu mel noonu foo toll te xel ba bañ koo nettali mukk mukk mukk lépp loo xam ne rek boo ko waxee mbaa boo ko defee faaw nga wëlbatiku naa ah nañ ma jëggal de loolu de moom maa tooñ lool de moom nangam rek a tax de waaye xam naa ne maa tooñ nañ ma jéggal lépp loo xam ne faaw bu ëllëgee da nga koy baloo ko joxe ngànt daal naa baal leen mu daal moytu ko bu baax a baax xamal ne loola baaxut del def loo xam ne rek rëccu da ca topp jekki di dogal ngànt naa jéggal leen ma kat dama ko tey rek mbaa dama rëcc du ca am wal xilmu lewet watta an nii ak teey daax yaani ñaari way woote lañu li sawaabi jëm ci jub wal xajalatu yàkkamti wal xadabu ak mer yóori saani danañu yóbbi nit danañu sabab an na dama rëccu fexeel ba moytu yàkkamti ak mer mer ak yàkkamti yaar la yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko ci seytaane te te yàqal nit lu baree baree bari nit mën naa mer mer ma tax mu wax mbaa mu def loo xam ne day yàq addunaam yàq alaxiraam yàkkamti nag moom li ci nekk ci lu yàqal nit mëni su ko wàññee ko takk lañ ca wax rek ne yàkkamti maanaam gaawantu yàqte loolaa ci am lewet nag moom ak mbir mu ni nga teey ca def ca ndànk yooyu yaar li ñu ëmb ci yiwu àdduna ak alaaxira yàlla rek ko xam kon nag fexeel ba foo tollu ame ak lewet jikko yaaram bañ di mer mbaa boo meree itam bañ a fayantoo bañ wax bañ a jëf te mbir mu ne nga tey ca bu baax a baax yooyu yar daal moom def leen ñuy sa ngànnaay al ashyaaw lii moo di yëf ya ad daafixatu ya di aji jiñ lil masaay bi ñeel musiba ya al muhawwinatu tey aji woyafal mooy tey aji yombal laxaa ñeel leen wax ya ñoom as sadaqatu mooy saraxe wasalaatu julli wa imaaratul masajidi ak dundal jàkka ya wal i'tikaafu ak i'tikaaf fiihaa ci jàkka ya wa an yaqool ak mu wax maa la nga xam ne sa nadkuruhu xalsat nan koo tudd insha allahu taala ne mi ngi lay bëgg booleel ay yëf-yëf yoo xam ne day tax nga mucc ci musiba mbaa bu la musiba dalee itam woyof lool yooyu nag nee na mooy saraxe ak julli ak dundal jàkka maanaam defar jàkka nekki def fa lu koy leeral bu dee jamono ñu ko aajowoo ak di ko setal di ko defaraat ak lii kaaf maanaam sax ci jàkka ja di wor bëccëg sax ci jaamu yàlla yi ak yee mu ciy bëgg teg day tax musiba du la dal mbaa bu la dalee itam daal di woyof mu tàmbalee ko ci waqaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam as sadaqatu saraxe taruddu dana delloo alqadaa atte ba al munbarima bay aji xereñewu yàlla mën naa dogal ab ate bu jëm si ci nit mu saraxe rek loola tax dogal bu naqari boobee jëm si woon ci moom far ko teggi du agsi kon saraxe baax na lool ndax mën naa delloo lu jëm si ci moom ci dogalub yàlla te di lu naqari saraxe sa tax yàlla teggil ko ko wa qaala sallallahu alayhi wa sallam ayuma muslimin bu mu ci ab julit gasaa sàng na musliman ab julit tawban malaan kaana kon mu nekk fii xifdillahi ci kaarangeel yàlla maa baqeet li fekk des na minhu ci moom ruqxatun aw daaxiit aw morso wala aw daaxiit addis ba nee na saa yoo joxee sa mbokkum jullit yére buñ mën a sol yàlla dalay aar la sàmm ba kera yére boobee di xaru-xar ba nga xamee ne dara ci morso sax di satu ca wuñ mën a jariñoo li fekk booba rek yàlla moo lay sàmm ka aar waqaala wax na yonante bi as sadaqatu saraxe fi sirri ci nëbbu tutfi u day fay ghadabar rabbi merum buur bi addis ba nee na saraxe te làq ko bañ koo fésal day giifal merum yàlla was sadaqatu saraxe fil alaaniyati ci lu feeñ tudhibu dana dàq tudhibu dana demal la waaye man nga dana dàq mu gën a yomb xam xan bi walis boroomam sabaxiina juróom-ñaar fukk miitatan ci ay deexiin ne suuy ci ñaaw benn saraxe boo xam ne kooku da koo fisal waaye yàlla tax mën naa fekk juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw yoo xam ne naroon naa wàcc benn saraxeem boobee rek fekk dee yu ñaaw yu bari yooyu le dañuy wax nag ne bu dee saraxe boo xam ne yaa ko coobareew ngir yàlla nga làq ko moo gën nga fésal ko bu dee nag asaka nga xam ne farata la moom su fekkee ne boo ko feeñalee ragaloo ca gis sa bopp ba dara kon nga fësal ko mooy gën ndax ku ko fàtte woon daal koy fàttaliku génne asaka koo xam ne sawaru ca woon roy la ba sawar ca ni alxuraan waxee ne in tubdu sadaqaati fa ni'immaa hiya wa in tuxfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa huwa xayrun lakum wa nukaffir ankum min sayi'aatikum qaala sallallahu alayhi wa baakiroo na ngeen di teele bi sadaqati ci saraxe fa inal balaa naka balaa laa yataxattaa du jéggi as sadaqata sarax addis ba nee na woon dee leen teele saraxe dee leen teele saraxe